mu ngi ñëw ci ginnaaw wusuwul maarifa mooy xam maarifatu billaahi mooy xam yàlla xam yàlla nag mu ngi amee ci ginnaaw ba nga àggee ci sa borom waaye ndax mbir ya fa yem déedéet boo àggee ci yàlla it am na feneen foo jëm boo xamee yàlla it am na ci leneen tulum la war mën a yóbbu ginnaaw maarifatu billaahi fu lay yóbbu mooy tawxiid ndax kat yàlla ku ko jaamu soxla te jaamu yàlla yëpp wéetal yàlla la jaamu yàlla yëpp bu ñëwee nga def ko mu rafet te sell te wéetal yàlla ñëwul yàlla delloo la jaamu gi ndax amu ci soxla ndax moomu ko ndax te loolu nga koy defal soxlawu ko ndax yokk ko dara ñàkk koo def wàññiwu ko kon yàlla mënoo ko jox lenn mu jël ko mbaa nga jox ko lenn mu bég ca bu fekkee joxoo ko boppam ku xamul yàlla nag mënoo def loola moo tax boo xamee yàlla moo la yóbbu ci nga wéetal sa borom tawxiid mooy wéetal yàlla kuy wéetal yàlla nag mënatoo tudd yàlla di tudd leneen mënatoo xam yàlla di xam leneen mënatoo di wax ak yàlla di wax ak leneen moom wéetal rekk yàlla li ci lu dul yàlla yépp danga ko dàq kesa ci xel mbaa ci xam-xam wala yëg-yëg su ko defee nag loola mu ngi amee ci ginnaaw xam yàlla moo tax kenn du am tawhiid te xamoo yàlla ñu ngi koy wax nag waaye kenn du am tawhiid te xamoo yàlla ndax mënoo wéetal yàlla mënoo koo ragal te ki ngay ragal xamoo ko yenwul maana kon xam yàlla jiitu wéetal yàlla te wéetal yàlla boobu du ay wax bu doon ay wax kenn du toppi ji kenn ndax wax moom yomb na yàlla mooy rey yàlla mooy dekkal yàlla kenn la yàlla amul moroom yàlla mooy fay bés pénc yàlla baax loolu moom ku ne xam na ko ku gëm yàlla ku ne gëm na ko waaye ndax ca yem nag ndax loola daa doy ndax wax ji lañ soxla déedéet xam-xam ba lañ soxla ak dund ga su ko defee nag wéetal yàlla boobu nag loolu lañu tuddee tawhidu taaruf moo tax taw tawhid ñaar la takkalum mooy li ngay jàng ci téere yi jàng ko ci alxuraan ci melo yàlla yi jàng ko ci téere tawxiid yi waaye nag tawxiid taaruf moom duñ ko jàng kooko xam-xamu biir la xam-xamu yëg-yëg la loola nag lañuy ñuy wuti ci kilifa rek nag su ko defee nag loola ci ginnaaw xam yàlla la ne wéetal yàlla bu amee nag la ca toppaat mooy fannaaw defe naa ku wéetal yàlla nga dem ba gisatoo lu dul moom nga dem ba yëgatoo lu dul moom mooy àgg nga ca péem ba te wax dëgg yàlla na ku àgg ci yàlla ci pay boo xam ne yàlla rek a fa ne te xajowu fa ak leen te leeram gi kenn mënu koo dékku kon pay booba ku fa àgg kon war nañ xam ne ah sa xel ah dootul mënatee jàll jëm feneen sa yëg-yëg it noonu loola ngay yëg ak loola ngay gis nag noona muy def ci sa xel ak ci sa xol nag moo lay yóbbu ba dootoo xàkk saa gis leneen dootoo gis leneen dootoo yëg leneen moo tax ñu mës a àgg ci pay boobu la ca ëpp ñëpp daan nga ci dégg kuy dox ci kaw sàqet daan nga ci dégg koo xam ne daf daan naan fekk ñuy togg mu téen naan ko daan nga ci gis kuy dox ci kaw dugg ci biir safara daan nga ci gis kuy yëg ci kaw garab daanu jël lépp am na ci parce que yëgatuñu seen bopp yëgatuñ nekkuk leneen waaye nekkuk yàlla gi rek la yëg teeg nañ yàlla nekk fu ne noonu nit ki xamee nag da yàlla rek a fi ne lu dul yàlla nekku fi loola du ay waxu kese liñ koy wax bari na lool waaye du waxu kese nag xam-xam la boo xam ne ku ca àgg rek dana soppi sa dund ci soppin boo xam ne nit ñi dootuñ mën a dund ak yow ndax dootoo wax luñ xam dootoo def luñ xam te nit ñi dootuñ la mën a dékku moo tax boo déggee ñu ne fànnaaw fànnaaw mooy jeex mooy li yàlla mel ni li yàlla bind yépp amul li yàlla bind yëpp amul solo li yàlla bind yëpp nekkul ndax nekkuk yàlla nekkuk yàlla boo koy dund doo mën a gis nekkuk leneen turu yàlla boo koy dund